Omar si maa ngi lay nuyu. maa lay fay soxna si Awa Ba. yow yaay euh, njiitu association commerçant ak industriel yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal jamono ji nag mu am ab euh, grève goo xamante ne daanaka euh, yéen a ngi koy tàmbali rawatina ca port autonome maanaam coow li fa am te du transporteurs yi kese wala transitaires yi waaye commerçant yi tamit ñoo ngi ci lan mooy réellement problème bi. jërëjëf soxna si soxna Awa ñu ngi lay nuyu di nuyu say auditeurs. la jaajëfal ci opportunité yi ngeen ñu jox pour ñu waxtaan ak sénégalais yi problème bi am ci port bi du problème boo xam ne bu bees la yàgg na fi depuis deux mille vingt loolu juróon ñu dem sali defa benn séminaire de quatre jours tënk cinquante huit points juróom fukki points juróom-ñett yoo xam ne dañoo bokkoon xalaat acteurs yi buur poor yëpp ak toutes les autorités étatiques ñu tënk ne lii de buñ ko defee. waxuñ na problème bi ci port dana jeex waaye dana wàññeeku à plus de quatre vingt quinze pour cent keroog bañ fa jogee lañ ci gëj a wax daanaka amul dara luñ ci appliqué problème yooyu nag mooy wéy di wéy di wéy ba yegg si foo xam ne fi ne mënatuñoo dem moo tax ñu taxaw ñun transporteur commerçant transitaire mais mënatuñoo liggéey ci condition yi jotoon nañ def benn grève quarante huit heures autorité recevoir ñu wax ay promesse diggé ñu bàyyi dara amul ñu demaat beneen grève 72 heures cette fois ci dem nañ ba ci kanam la premier ministre mu jël ay engagement joxe ay instruction France ñetteel baa ngi nii nag commencé nañ ko depuis altine bale tey ñu ngi ci fukkeelu fan te incha allah rabbi fii ak lundi su sottiwul commerçant yi def nañ dem point de presse dañuy def à la vitesse supérieure mooy dañuy baisser les rideaux dañuy tëj magasin yi Sénégal gi yëpp loolu bu fekkee fii ak altine solution amul commerçant yi danañ ci yokku tëj seen magasin Sénégal yëpp. Mm-hmm. donc fi mu toll nii da ngeen di waajal gréew banque seen loxo euh, ba nga xamante ne euh, vraiment euh, pour problème bi mën a faju effectivement mm-hmm. loolu daal wax nañ ko démb ci suñ conférence de presse mais bu fekkee ne solution amul ba ñu yegg altine bii di ñëw. talaata moom dañuy daal di tëj suñuy magasin fii ci Sénégal yëpp léegi nag problème bi li ko waral barina na torop torop waaye boo ko doon tënk ci rek ci juróom ñeenti mbir lay lay dem bu njëkk bi mooy conteneur vide yi nga xam ne wàcc nañ ko ba yóbbu ko suñuy place dugal ko suñuy dépôt war ko delloo ligne maritime yi conteneur yooyu lañ jëlut te tant que conteneur vide yi mi ngi ci biir port bi du sotti waaye mieux léeg-léeg dañ koy jël teg ko ci sa kaw oto yow nga yor ko ñetti fan ñeenti fan juróomi fan ba fukki fan doo ko mën a wàcc te camion boobu war a dem liggéey loolu lañ na mënatul a wéy jël Sénégal def ko dépotoir ñaareelu point bi mooy am na ñaari arrêté ministériel yoo xam ne ñun liggéeyoon nañ ci ba d' kerek bi ñu toogee premier ministre def nañu woon juróom-ñetti fan laa leen ñaan ñu signé ko kerek ci réunion woowu dafa woon la secrétaire général du gouvernement da ko ma les deux numéros pour la publication de ces deux arrêtés dans le journal officiel juróom fan la ñu waxoon. ñaari weer yi léegi mu mat signature bi gën a ndaw gisuñu ko te ñaari projet yooyu gis nga soxna si feek signé wuñ ko mënuñu liggéey ndax ñaari projet yooyu dafay dindi sàcc gi nga xam ne ligne maritime bi ñu ngi koy sàcc ji bi ñuy facturer am na ñeenti ligne yoo xam ne ñu koy facturer ci biir facture ci facture bi te loolu tey boo ko doon dajale ci xaalis mën na ay milliards par année parce que bul fàtte na ci port Dakar bi lu mat sept cent cinquante mille ba huit cent mille conteneurs danañ fi ñëw chaque année beneen projet de d'arrêté bi mooy Dubai por dafa am tarif yoo xam ne moom la war a appliquer du ko def moom it di def lu ko neex loole bi alal ju bari moom it par année ñaar yi la ñu wax ne mënatuñoo continuer di ci fay dara comme arrêté ko defoon nag na ko arrêté dindi liggéeyoon nañ ci ba jël document bi jëbal ko autorité yi waaye lu ko téye ba léegi xamuñu ko. alors mais est-ce que tamit euh, jot ngeen a entamé ay négociations jéem a lal waxtaan euh, ci seen biir. waaw waxtaan day neex boroom kër. léegi léegi ñu woo ñu wax waaye la ñuy wax ak la nga xam ne mooy problème bi dafa nekkul benn ñun dañoo wax ne ñeenti yi te mooy ñett yi ma la limal mooy huit yi mooy euh, chaque facturation surestaries ak magasinage yi ñuy fayeeku te defuñ ci dara te mooy ñetteelu point bi maanaam ay taxes yoo xam ne dañuy wax ne nañ koy fay ñun. mooy su conteneur bi ñëwee Dakar fukki fan lañ la may nga génne ko bu fukki fan jotee te génne ko lu ci tegu yow yaa ko a fay ñu ne d'accord nañ waaye na fekk ñun ñu def lii tax génnul waaye ñoom dañ lay tooñ dóor la nga tooñ dañu dóor la yow kay ma tardé lee fayatoo ma loo may fayee ko loolu la ñu wax ne dafa war a jeex loolu tànk dañul mënuñu commencé liggéey parce que dañuy wax ne c'est révolu c'est terminé dans ce Sénégal benn commerçant di fayti benn taxe sur les services de nga xam ne ay milliards la par année te fekk na moom defu ci dara parce que conteneur bi su ñëwee pour mu génn ci compte ci port bi juróom-benn acteur ñoo ci nekk commerçant bi la transporteur bi transitaire bi compagnie maritime bi Dubai port ak port ci boppam waaw su fekkee fukki fan wala mu def loo xam ko def mais pourquoi tout le temps bu fekkee erreur am na moo xam ku ko mën a def commerçant bi mooy fay loolu lañ ne dafa jeex loolu nag li koy régler mooy ñu teg benn protocole d'encadrement boo xam ne pour enlever ci conteneur ku nekk danañ situer sa responsabilité ba nga xam ne bu amee fu mu tagee ba génnul ñu ne jiw sangam ci yow la loolu liggéey nañ ci ba jël document bi jox leen ko ñu ne dañ ko signé wala di ñu demloo ko ñëw bu leen neexee ñu signé lii bu leen laaj neexee duñ ko signé ñu ne da ngay boole naan wala boole tuur. kon daal boo xoolee problème yi retour vide yi la maanaam euh, conteneur vide yi la su dee rek magasinage yu ñuy fayloo te ñun suñu yoon nekku ci ñoom ñoo ñu tardeel fayatuñu ba pare di ñuy fayee ko loolu ñu wax na si terminé. bi ñu wax ñetteel bi mooy mm-hmm. ñetteel bi mooy ay ñaari arrêté yooyu ministériel ministère du commerce war a def te premier ministre dugal ñu ne huit jours te léegi mu mat deux mois gisuñu benn signature faw mu am wala duñ dem protocole buy situer les responsabilités de tout un chacun dans la chaîne logistique pour ku def erreur ñu am loolu nag ay conséquences la mën a Mm-hmm. parce que conséquence yi déjà port Dakar bi dañ ne c'est le poumon économique de ce pays ñaata navire ñooy ñëw nekk en rade toog 3 jours 4 jours mënu wàcc parce que congestion dafa am ñu dem seen yoon loolu ñaata perte la mais ñun ñi nga xam ne ñun ay employeurs di ay sénégalais bon teint mais liggéeyuñ perte ci lañ nekk waaye sax loolu ba tey am na lu ko gën a doy waar mooy dañuy dem ba rareté des produits parce que bu conteneur yi gën produit yi day raar déjà prix day gën a yokk mm. te est ce que xam nga ne soxna ci li seeral njëg denre yi nii xam nga ni li ci gën a bëri port bi la jëlal soble soble bu ñëwee ci marché bi ci ñëwee ci port bi xam nga yeneen produit yi fukki fan lañ la may soble ñetti fan lañ la may pour mu génn ci port bi sinon dañ da ngay fay su ñetti fan yi romboo bis bu nekk dañ lay fayloo soixante onze mille ci branchement courant sans compter nag sur les services ak magasinage yi mais marchandise boobu mën naa génn yomb ci loolu laa doon ñëw parce que yokkutee dundin bi tamit boo seetee dafay dem ba nga xamante ne dina laale impacté ñi nga xamante ne ñooy askan wi. en grande partie nag li ko waral port bii la. Mm-hmm. wax naa la ay milliards la ay milliards yoo xam ne li man naqari mooy dara du ci fanaan Sénégal ay multinationales ko di ko yóbbu au vu nag aussi de toutes les autorités amul kenn ku la mën a wax ne lii yëgu ko ndax lu ci nekk bind nañ ko document ku ñu war a toogal toogal nañ lu tax boobu ba léegi mesures yi ñu war a jël jëluñ ko mu jaax loolu moo jaaxal ñëpp. très bien defe naa leer na nañ ñu lay jaajëfal bu baax a baax Oumar Cissé may fàttali ne yow yaay njiitu kuréel gi ëmb commerçant yi ak industriel yi nga xam te ne ñoo nekk fii ci Sénégal ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup c'est moi.